yaay Mustafa yaay Muntaxa yaay wàlliyu gi jug mi ndéef gi ay gi nee na Mbàkke balla Seex Fallu yaay Muntaxa yaay wàlliyu gi jug mi bismillaahi rahmaani rahiim wa inna auzu bika wa zurriyataha min ash-shaytaani rajiim rabbi auzu bika min hamasaati saatiin wa auzu bika rabbi ahdurun bismillaahi rahmaani rahiim jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jaarama mam Cheikh Ibrahima Fall Lamp bal Mouridine xana di len jaajeufal bu baakha baakha baax te di ñaan seigne Muntaxal basir mu yagg fi lol te and ak wër non lañ koy ñaanalee seigne Cheikh jëm xol ak mboolem njabootu seigne Touba ak Cheikh Ibrahima mboolem kilifa diine rek bu nekk ci rew mi ñu ngi lay ñaanal suñu borom nga yagg fi lol te and ak wër ci barke borom Touba mu melni ni reportage bi ñu amoon tey ci seigne fallu ci and ak suñu jëwri ni nga xamne ñom sa suñu rek ñom lañu andal ci liggéeyal borom Touba ku ci melni jëriñ Amadou Mar seigne Ahmadou Bambakan ak seigne Mbacke Diagne ci ànd ak it suñuy jaamkat sëriñ Mourtala Fall ak sëriñ Mod Ñing ñu ngi leen ciy jaajëfal bu baax a baax te di ñaan lépp li nga xam ne rek barkeelu nañ ko ci sëñ Fall yàlla nekk njariñ ak xéewal ci te wasaare ko ci ci biir réew mi ci bitim réew ci ak ci mboolem àdduna bi yëpp ci barke borom tuba mu mel ni dañuy tàmbali liggéey bi rek te di jox suñu jëwlin jëwlin Cheikh Ahmadou Bamba tan rajim bismillahir rahmanir rahim وإني أعوذها بك وزريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أصلح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفهو حولي سدد لساني نوير جناني سف أماني وزد برائي وبكلامي صدور الحوم مؤمنين مهنيا عن لومي asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar di jiital ci nuyoo bi nag ak ziyaara bi al saahibatul fadila li taifatul murida cheikh muntaha al bachir di ko ñaanal yàlla na yàlla guddal fanam lool dëgëral ko lool te ko lool barkeb cheikh naa cheikh ahmad bamba xaadim rasul noonu la ñuy ziyaare sëñ Cheikh Jëmb Fall mi nga xam ne tey mooy fii maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridina moom itam di ko ñaanal yàlla na yàlla guddal fanam lool dëgëral ko lool te wéral ko lool barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall ci noonu nag ñi ngi sant di gërëm tey ñaanal képp ku nga xamante ni rek. yaa ngi taxawal diine fii ci Sénégal ak foo mën a bokk rek tey teewal lislaam rek ñu ngi lay nuyu di la ziare xanaa kon dañuy jox suñu jëwriñ rek suñu Ahmadou Mar moom it mu ñëw feeñal yéeneem ci. aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wala xawla wala quwwata illa billahil azim bismillahi rahmaani rahim wal asri innal insana lafi xusrin illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil wa tawasaw bis alhamdulillahi wa sallallahu abada ala alladhi bihi lana kuda abada sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi zawin walid wali assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh mbokki jullite mbokki talibe yi ñu ngi ñëpp di len xaar bu baax di jital sunu nuyu ak sunu siyaar si serigne muhammadul muntaha mbacke diko ñaanu yak mu yàgg ak wër noné lañ koy ñaanal seen sey jëm faal momit mbom ak wër di siyaare ak ñaan njawul sëriñ bi yëpp di ñaanal bu baax a baax sunu jàmbaar ji sunu yaakaar ji di Cheikh Abdou Sakor Mbacke di ko ñaanal sunu moom yàggal fu lool te mu ànd wér ba naa lim naa ngi liggéey sëriñ bi sunu moom la ko taxaw ko ngir ci liggéey bi mu ne te mooy liggéeyu jàng ak jàngale ñu ñaan yàlla ko yàlla bu baax a baax di nuyu bu baax a baax ki nga xam ne moo fi nekkal sëriñ Fallou Mbacke di sëriñ Abo Baraka di ko ñaanal yàlla ko yàlla doole kàttanal te loolu ko fee yàggal bu baax a baax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 salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di ziaraat baax di leen jox seen wàccuwaay eh, di nuyu suñu jëwriñ yi nga xamante ni ñoom lañ fi bokk nekkal muy jëwriñ sëñ Ahmadou di ci teg sëñ Ahmadou Bambakan waaye tamit di nuyu suñu jëwriñ suñu xarit suñu soppeet sëñ Modou Ñing waaye kasaalike noonu la ñuy ziare bu baax a baax sëñ Alsaan moom it di leen jox sa wàccuwaay bu baax a baax a baax di wax nit ñi ngi doole nuyu tey beral ab ziarit suñu lépp momit muy sëñ Murtada di ko siyaar baax di ko jox wàccuwaayam di ko dollee ñaanal tey ñaanal ñëpp jàmm ak tawféex mu mel ni tey jii it dañoo nekk ak yéen ci wàccaayu Kazu Rajab mu mel ni it wax dëgg di ko ànd ak suñu mbokk taalibe yi nga xamante ni macha allah ñoom it muy ñoom sëñ Xaadim ak ak ñi mbokk ci liggéey bi kon ñu ngi leen di siyaaraat baax. weeru rajab suñ ko tuddee rek sunu xel dina dem ci Islam islam ju nga xamante xel yépp day daal jëm ci moom muy cheikh mouhamadul fadel mbàkke serigne fallu nag àddina bépp xam na jëfam ju rëy ji àdduna bépp xam nañ njàmbaaram gi àdduna bépp xam nañ teddam gi àdduna bépp it xam nañ ci digganteem yàlla ak yonent bi ak Cheikhul Khadim nga xamante ni moom la fi nekkaloon ba nga xamante ni weeru rajab bi nag ngëneel gi ci am mooy si la yonent bi gàddaayoon maanaam reñaanoon dem ca suñu boroom weer wi nag ngëneel yi ci nekk bari na lool lool lool ba tax na si la ne sax julli bi yonent bi di wàcc si la ko indaale kon weer la bu nga xamante ni suñu boroom da ko fonk bañ nañ ko dañ koy dàkkantale sax turu yàlla ñu naan shahrullahi rajab kon nag weer bu am solo la boo xamante di ci jaamu yàlla bu baax a baax a baax a am na solo ndax yi ngëneel kese la dégg ngeen digle yiñ ci digle ku ci woor benn fan ñaar ba ñetti fan pay gi nga ci am rajab tamit dégg ngeen ne ab dex la boo xamante ni ma nga ci àjjana waaw képp koo xamante rek woor nga ci bés nee bu yawmal xiyaamee sa borom dana la ca nàndal kon rajab am solo lol lol lol lol, lool ba nga xamante ni di yokk jaamu yàlla gis ci jaamu yàlla am na solo lol lol kon julli ji nañ ci gën a góorgóorlu loolu wéyee nag ñu dellu ci waat ci suñu jàmbaar yi lislaam ji nga xamante ni mooy cheikh fadal mbàkke cheikh fadal mbàkke nag ku ne xam na ni ganeeg jamonoom mi ngi ko defee daaru salaam Euh, ci maanaam xasasin xasasin nag buñ koy wax mooy atum junni ak ñetti téeméer ak juróom loolu nag bu wéyee xam nga maanaam buñ koy wax ci weerum nasaraan day doon euh, maanaam le 27 ci 1827 juin ci 1888 lool lool lool lay tombeel waaw ah, gane jamono nag ci waajuru jigéen bi ñuy wax euh, soxna awo buso na awo buso nak momit it bu nu toppee silsilaam ku ne xamna ni buñ ko topé moom shérif la motax ñu naan fallu shérif la shérif la bun serifun serifun bun sërifun tuuma jublu ko gane jamono nak ci ay wajur yu tedd digënté soxna awo buso ak sunu yaakaari teeg ëllëg ji nga xamante ni mooy Cheikh naa Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul ba tax na foofu dan naan euh, ndeyam moo di bàjjenam baayam moo di nijaayam waaw kon loolu xanaa ci senegal dan naan loolooy bete bete piir waaw kon loolu dañ koy wax rek ci wàllu juddoom gane jamonoom bu loolu wéyee nag ku ne xam na fi mu jaar ci wàllu njàngam waaw ak tarbiyoom ak yépp wax nañ ni sëñ daam abdourahman lo moo ko dalal dalal alquran waaw foofu ci daaru alimul xabir daalumul alimul xabir nag suñ koy wax mooy ndaam ci ñu bari ñu ko xamul euh, loolu si la nekk si la nekk si la nekk ba suñu borom dogal fépp fu nga xamante ni rek euh, doomu soxna aw na fa ngir ndar kepp lépp loo xamante ni rek suta la ci lislaam suñu borom def na aw na fa ci ni mu ak na mu ba yàlla dogal ñu dem ba magam ju tedd ja ñuy wax sëñ mustapha euh, Mbacke Alkarim toog ci xilaafa bi ci 1927 ba 1945 yàlla dogal moom mu ñëw wuutu ko ci xilaafa gi ah ba mu ko wuutoo ci xilaafa gi nag euh, li ci ay xar baax bari na yoo xam ne mënee su koo jeexal waaw ndax am na xissa bu gën a wóor sax bu ñuy wax ci fukki at juróom-ñett yi nga xamante ni Cheikh Moustapha Al Karim toog na fi wax na képp ku mu jamonoonteel euh, yàlla du la bindal bàkkaar te loolu doon na doon na lu rëy loo xamante ni kéemaane na lool lool lool waaw di taw feex namit ci jullit yëpp. xam ngeen ni Serigne Fallou nag maanaam buñ koy wax ak juddoom mooy mbaax ndax it li sëñ Moussa Ka waxoon ne mbàkkeeg. mbusu ba mbusoo bi duñu ko njar te mooy dafa xam ne rek doomu samsun wa xamar mu ne mbàkkeek mbusoo bi duñu ko njar mu ne yaa nàmp ñaari meeni gor yaay sëñ bàmba ci xarnu bi kookee nag mooy sëriñu fàllu mu am judd ku rëy juddu ku rafet nekk koo xam ne maanaam sunu borom si jiitu moo ko amee woon boole ko ci ngëneelam yi gën a màgg mu nekk koo xam ne nee nañ moom dong mënoon naa yor yoonu boppam waaye nag yàlla ko yoroon doon xaar góor yàlla bu koy liggéeyal ba mu jëkk faye ko noonee la ko faye nag sunu yaakaar yi mu Cheikh Ahmadou Bamba mu faye ko sëñ Fall mu nekk ngëneelu yàlla kon sëñ Fall moom suñu wax ak judoom foo ñu wax li nga xam ne mooy ay mooy askanam mu bokk si askan bu tedd di askan boo xam ne ñaari wet yëpp boo leen toppee dañuy dem ba si yonente bi sallallahu ndax it xam nga ni sëñ fàllu soo waxee kuy baayam dañ naan la Cheikh Ahmadou Bamba mel ni rek maanaam akub mbaax wala akub gënale ci askan yamoon na foofu ndax xam ngeen ni Serigne tubaa moom mboolem ñu ko jiitoon di mbokkam la ñuy mën a ndamoo yëpp mooy ñoo bokk ak Serigne nangam waaye mboolem ñi nga xam ne ñoo fi nekk ginnaaw Serigne bi it la it mooy ñoo bokk Serigne Touba kon Serigne moom mooy dayoo dëgg-dëgg mbaaxu askan waaye nag sëñ Fallou moom Serigne tubaa mooy waajuram Serigne tubaa mooy waajuram Ah, waaye waajurum bu jigéen xam ngeen ni mooy soxna aw buso soxna aw buso bi nga xam ne moom it soo tollee soo toppee càllaleem day dem ba si yoon salaa salaam ndax li ma ne sëñ Tuubaa soo toppee càllaleem moom mi nga xam ne doy na sax si mbaax waaye moom it day dem ba si yonent bi ndax soo xëy sëriñ Tuubaa da nga wax ah, Mamor antasali Sali Mamor antasali Sali moom kuy waajuram mooy ah, sëñ Balla sëñ Balla Aysa mam Balla Aysa mi nga xam ne moom mooy caatu mam maram maam balla aysa boobu noonu maam maaram mooy waajuram kon so toppee sëriñ bi da nga mam parce mam maam maaram maam maaram it xam ngeen ni soo ko toppee dañu dem ba ca maanaam shérif yi nga xam ne ñoo nekkoon ca gànnaar ñoo ñuy boo toppee monsieur la salam kon soxna aw bu bi nga xam ne mooy waajur sëñ fàllu ah nekk koo xam ne askan bu mag la bokk si askan bu tedd ndax it soxna aw buso xam ngeen ne mok sëriñ mbàkkee buso ñoom ñaan ñoo bokk seen waajur bu tedd ba seen waajur bu ragal yàlla ba nga xam ne mooy sëriñ Mbusoobe sëriñ Mbusoobe it xam ngeen ne suñuy wax ci moom ak mbaax doy na ndax it xam nga ne sëriñ Mbusoobe doy na si ak mbaax rek moom mi nga xam ne sëriñ Tuubaa keroog ba muy jaayante ak saa salaam gi taxawal yoonu géej gi muy yoonu tukki bi xam ngeen ne yàlla yoon saa sam dakaa ne ko sa borom nee na ñaar daal fi mu toll ni ñoo tee natt yu wàcc ndax mooy benn tubaab yi nga xam ne mooy sa dëkk bi da nga aar ko ba yàlla defal la ko kon fii ak yaa ngi fi am nattu du fi waat waaye beneen bi mooy lan mooy nag yàlla boole naa nijaay ju baax joo xam ne ku ragal yàlla la koo xam ne nag maanaam su yàlla naree wàccee nattu moom su ko yégee dina ñaan boroom te bu ñaanee boroom dina la jéggal kookee mooy kan mooy sëriñ Mbusoobe mu nekk koo xam ne ku ragal yàlla la nekk koo xam ne ku yeggoon ci yàlla nekk waliw bu mag sëkk boo xam ne mboolem réew bi yëpp xam ne ko ci mbaax xam ko ci jàng alquran ak jàngale alquran ndax it xam ngeen ni moo njëkk a jàngal sëñ tuba alquran sëriñ bu soobee boobu nag moom laata muy samp kër dafa ñaan borom ndax yéex naa samp kër waaye dafa ñaan borom nag ne ko man nag balaa may samp kër damay ñaan nag mboolem doom bu ma jur yépp muy góor ak jigéen na nekk waliw su borom defal ko loolu moo tax soxna aw buso bi nga xam ne may waajur sëñ fàllu maanaam waliw bu mat sëkk la wax la moom ak sëñ bàkkee buso ñoom ñoo bokk waajur muy sëriñ busoobe sëriñ bu sooy boobu nag moom ak soxna jaara ñoom ñoo euh, moo ak soxna jaara ñoom ñoo bokk sëriñ Mouhamadou Bousso càllale ko it boo ko toppee dangay dem ba si Seyna Assane bi nga xam ne maanaam Seyna Alioune karamallahu wajhahu moom moo ko jur te it soxna Fatima bi nga xam ne mooy doomu Yusa Salam bu tedd ba moom it moom mooy waajur bu jigéen kon da naan sëriñ fàll moom moom lañ naan maanaam shérifun bun shérif ndax moom ñaari wetam yëpp maanaam boo ko toppee day dem ba si Yusa Salam kon nag sëriñ Touba si boppam moom sëñ Fallou Serigne Touba baayam la di ndeyam ndax suñ ne baayam la di ndeyam mooy baayam la ci wàllu geño waaye ci wàllu meen Serigne Touba nijaayu Serigne Fallou la kon moo tax mu nekk baayam nekk ndeyam kon yaakaar naa bu ñu wax askan askan gën a askan woowu Serigne Fallou si askan boobu la bokk waaye xam ngeen ni Serigne Fallou it ak cërëm gi ko yàlla defal gane àddunaam mu nekk mbir yu rëy yoo xam ne. manam lu jitu soxna abu sa fa mu nekkon don fa manam liggéeyal yalla te andal goor yalla bu mag goor yalla bu beri beri bëri mbir nek kiñ nan manam serigne abdu manam kumba an euh, sering abdu kumba an ñang mom nga xamne moy wajuru serigne sering ñang xam ngeen ni serigne abdu mom dafa wo soxna abu so ne ko man day xamna ni aduna mom duma fi ndax li may firnde du ma fi yàgg mooy suñu mboom ne daf maa wan ni yow de soxna aw bu sow maanaam di am doom joo xam ne doom ju rëy la doom joo xam ne doom ju rëyu mbir la ku bari baatin la doom ju maanaam bëri ay yëf la nga xam ne mboolem jullit ñëpp dinañ ko sopp mbooleem bu bari dinañ ko topp ne doom jooju kat suñu xamal ne mu ne daa war feeñ ci yow te yegg si na daanaka te dañ ne ma man du nekk baayam te yow nag xam naa ni aw ma yéene wàcc la ndax danga nga da maa liggéeyal ba ma gërëm la kon lenn fii sës nag mooy xam naa ni kon damaa war a wuyu suñu borom kon mel ni loolu annonce la boo xam ne maanaam teel na ko wane ni maanaam suñu Fallou dina ñëw jamono waaye nag di xamal ni maanaam doom bu rëyug baatin la doom bu rëyug wilaaya la doom la boo xam ne nit ñi dinañ ko bëgg dinañ ko topp mu nekk koo xam ne mbaru suñ borom dëgg dëgg la waye nak si ki mu war a feeñ ci nga xamne moy mooy yaakaaru yi mi nga xamne mo borom ba fu mu tollu rek su borom jël diko fayé ko kay moy cheikh amadou bamba sun yaakaar tey kon serigne fàllu kon lolé annonce la bu moom yaakaar naa wul kenn ndax ku ne ak juddoom xam ne sëñ it mu ngi judd ci weer yi nga xamanteni ci lañ nek muy kazu rajab ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci rajab yaay Mustafa yaay Muntaxa yaay wàlliyu gi jug mi gi ay gi nee balla Seex Fallu yaay Mustafa yaay Muntaxa yaay wàlliyu gi jug mi gi ay gi nee balla Seex Fallu Seex Fallu sam nga juma serigne fallu ci xar bax yak may yu tedd ya biñ ko waxe lolou day ci cheikh mustafa al Karim Mom ci bopam def ne malaka mi nga xamanteni moy bind bakar mom la wo bam ñew ana ana ana khalimaga. ga wa mu ne ko damm nga xamni mom kon dane kep ku mu jamono teel la bindal bakar kon lolou may la go xamanteni yombut ñu dégg fenn fenn fenn ci àddina sëriñ Fallou nag bes koy waxtaane li ci ëpp solo te war cee ràññeeku lool nit ñi xam ko mooy li nga xamante ni moo gën àddina ak alaxira mooy ak taalibe sëriñ Fallou suñ koy waxtaane tomb bu ñu mën a wax rek nan leen jàngat taalibe gi ci moom nga xamanteni moy mooy jariñ tey fii ak fuñu jëm mo ni jariñ tamit ci cheikhul khadim ak taalibe talibé nak lu mu am solo dadi moy jagal adina, moy jagal alakhirah. taalibe liñ ci joxe misal rek Cheikh Momar tala Fall ñu gën ko xam ci mort tala Fall ñepp xam nañ ni Cheikhul Khadim moko yar dem nan ba ni bi koy yewi sax daf nako ko Momar Talla waxal li nga bëgg ma defal lako ko mun a rek ba yag serign bi nako xana ma talal tanal la bok mu ne ko waaw waaw mu ko kon tanal na la ak taalibe taalibe gogu nak bu nuy waxtan ci serign fallu mo wara jëkka doon li nga xamanteni boko xalamé ba settantal ko da nga xamni serign serign serign fallu rek la doon jangalé ci adina foofu nag dañ fay jàng dayow cheikh na cheikh Ahmad Bamba xaadim rasul ndax moom ci boppam day si moom ngeen déggee mu ne jaay naa sama njureel jënde ko ak taalibe ndax nag ca Ceyeen Jolof bañ fa demee la leen ku tedd gi xamal ne ko kat man aw ma aw ma aw doom aw ma nijaay maanaam daal loolu nga xam ne nit dina ko am ci mbokk ak yooyu sëriñ bi moom dafa xamle ni loolu euh, du mooy tax nga jariñu ci moom ga sëñ fàllu xamee nag la daan ne ko jaay naa sama njureel jëndee ko ak taalibe doon leen ni sëñ bi lu dul ak taalibe euh, ba tax ci la jaay ak njureelam jëndee ko ak taalibe waaye daf ni képp koo xamante ni jaay nga de njëgg moom yaa ko moom daan ni borom Tuubaa njëg gi de mi ngi nii waaye jox naa la ko addiya kon ci dara daal di jébbal boppam Serigne Touba bokk na ci ay jaar-jaaram bindal na Serigne bi lu toll ci ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett eh, te jamono yooyu itam bu daan fekk ak fere yi ci yi nga xamante ni mooy nawet moom sëñ Fall bu ñii daan nekk ci tool yi moom mu ngi nekk ci alxuraan ji eh, saa bu tool yi di noppi ànd ak kaamil yi di noppi mu ñëw jébbal ko Serigne eh, Sëñ Touba kon bokkoon na ci ay jaar-jaaram it maanaam màggal gi nga xamante ni. bokk na ci ki nga xamante ni moom moo ko yëkkatiwaat andil ñu ko fii nga xamante ni mooy biir dañ daañu koy gën a yaatalaat euh, ba kenn ku ci nekk man cee jot ba màggal gi fii tey fi mu maanaam mën nañ ni lépp sëriñ bi la waaye ñu ngi ko sabab sabab yaa ngi jaar ci ki nga xamante mooy sëñ Fall euh, bokk na ci maanaam liggéey bi nga xamante ni mooy liggéeyub jumaa ji liggéeyub jumaa ji ndax tolloon nañ ci foo xamante ni euh, nga xam ne kon kenn sëñ Fall mooy ku ne xam ne ne liggéey boo ko dee tàmbali euh, am na ci loo xamante ne day warlu ak ña nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir liggéey bi ànd ko ak ñoom. métti woon nekk jamonoy bekkoor nekk jamono boo xam ne boobu guerre mondiale amoon na ndax yaakaar naa guerre mondiale 39 euh, 45 ci si si jamono boobu la muy jamono bu tar di jamono bu jamono bu métti boo xam ne daanaka euh, am am néew na maanaam dem na ba mag ñi tàmbalee saalit dem na ba murit yu ñëpp xéwal lañ daan dund dem ba tàmbale ñàkk waaye sëñ Fallou bi mu ñëwee ak ci baatinam ba ko yàlla may ba mu ñëwee keroog la dàq rafle dàq xiif maanaam dàq lépp maanaam indi xéwal indi teraanga maanaam indi barke ba mbir ñëwaat ca na meloon te loole maanaam jëfam ju rëy moo ko may ak ñeewantal gi mu amoon ñeewantal ci mbooleem jaam yi waaye fa mu yegg fa mu fekkoon jumaa ji loole loole loolee loolu ittee gënu koo kawe wasalaam lolu ci fonk Serigne Touba gim fonk Serigne Touba lolu jarna naa jàngataat bu baakha baakha baakha baax waye tamit ci digganteem ak boromam may yi mu amone ci kun fayakon nga xamni ni dem nan ba dan koy askanale borom na am mu am borom du am du am ya khalaq خو يا من بفارق الإملاق يا فاضلا فضله الخلاق يا من بفارقني الإملاق يا فاضلا فضله الخلاق يا من بفارقني الإملاق واجاتك اليوم وللرزاق كان بما تنمو به محوت أني ما به النفاق أني محا وجاءني النواخ رددت لي ما زانه الوفاق بما استنار للآفاق جاء الرداء والفوز والإعتاق بك كما بك عتلت عتاق loolu jéggi na dayoo ta kawe na maanaam juboo nga ak sama borom ba loo wax na am mu am loo ne du am du am laaj naw déggin de lan moo ko may liggéeyal sëriñ Touba rek ndax tey Cheikh Ahmadou Bamba de li maam Cheikh Rahma Fall waxoon ci moom rek moom la moom la topp ah waaw doom jàng leen jàng baax na lool booy jàng de loo gis xam ko waaye kuy liggéeyal sëñ Bamba loo bëgg am ko mu ñëw nag teg foofu tànkam musu koo teggi kon sëriñ Fallou daji jëmm ji nga xamante ni ñun yoonu murit buñ ko copier rek yaakaar naa suñu lépp day jag àddina day jag alaaxira da jëmm joo xamante ni nag li tax yàlla may ko mu dugg ci xol ñépp waaw ndax tey Sénégal amul kenn kenn kenn koy gis muy dox moo xam mu nekk ci diine lislaam moo xam sax mu ñàkk a nekk ci diiney lislaam danaan la man sëñ Fallou laa bëgg sama xol moo xam mu nekk ci beneen tarixa it danaan la man de nangam laa waaye sëñ Fallou moom dama koo bëgg ba yamalewu ma kook dara loolu nag lépp li ko ko may mooy taalibe waaw jaay njureel jëndeek taalibe waaw sëñ Fallou moom bés koy waxtaane rek lépp nañ ko tënk ci ak taalibe ndax silsilaam ak yooyu yëpp Sénégal xam nañ ko fa mu ganee jamono waajur ya tedd nga ga waaw càlla la gam bokk loolu ñëpp xam nañ ko waaye lii lii lii kéemtaan tey jariñ mooy sëñ sëñ sëñ sëñ Fallu fi mu tegoon ak taalibe waaw fi mu tegoon ak ak fi mu tegoon Cheikh naa Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasuul digganteem ak maam Cheikh Rahma Fall Lampit gis ngeen ko waaw ndax ñoom fa ñu jaayantee ñoom ñaar loolu lu yéeme la xissa bi gëna siiw nee nan ba muy doon tout tànk la waaw mu ñëw jox ko addiye gëléem na ko bu ma fàtte ba nu demee ba jamono it gis ngeen soroor bi ci jamonoom la ba mu wooyee mbooloo mi ne leen ah dama bëgg kat képp koo xamante xam nga ni bi nu mu tudd ma jox law neexal ah bi yàlla dogalee ku ne wax na tur mu ne yàlla nag rek waaw waaye kenn mujj ko cee turwe mu ne leen ngi waaw kon digganteem ak maam Cheikh Ibrahima Fall mi nga xamante ni nee na moom rek la roy ci taalibe bi mu ñëwee jamono yit wane nag taalibe bu wér a wér a wér nag ah, ci fasaaxaam si ikamam ci xam-xamam géeju na lool ci lépp nag ci lépp lépp waaw da nga xamante ni li Serigne Touba doon dégtal ci ne ndaw soo si tollee nanga nga jàngi nanga nan la tarbiya nan la tasfiya loolu yëpp yëpp yëpp ba mu ko defee ba noppi nag daa daa di laxasaayu rek dëdmal Cheikh naa Cheikh Ahmad Bamba xaadim rasul ba nga xamante ni tey bés bi nga xamante ni moom la yoonu murit gën a fonk moom la yoonu murit gën a fonk moom moo ko wooteel sëñ tubaa tubaa ndax ku ne xam na ni euh, màggal moom rek lañ mës a dégg sëñ Touba ne santale leen ma yàlla sama borom foo waay mën a nekk. maa ngi woon ci tombu màggal gi waaw nga xamante ni ku ne xam na ni Cheikh naa Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul daf ne woon santale ma yàlla ak fu waay a nekk rek ku xam na ni moom sëñ moo ko woote ne nan leen di daje Touba di ko fa màggale Cheikh naa Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul loolu yëpp day tegtale tawféex gi ka sëriñ bi defal. taw feex bi mu am ci digganteem ak sëriñ bi nga xam ni sëriñ Fallou moom bés koy waxtaane li gën a kéemaane ci ci ci ci mbiram mooy euh, fi mu teg sëriñ Touba ak bëgg-bëggam waaw mooy fonk na dëkkub Touba lool lool lool lool ba lim fa réaliser lépp umpul kenn waaw ndax sëriñ Fallou moom. ku ne xam na ni bu ñuy wax ay ay ay ay ay ngëneelam euh, ci Sénégal fii daa mel ne lu ñuy baamtuwaat di ko baamtuwaat la rek ndax ñi mujj gane jamono sax dañuy ñëw jaayante bëgg ko seen xol ba am ay doom sax di ko ko dippee loolu kenn xamul lan la man nag ci sama xalaat bu gàtt damay jàpp ne lu ko sëriñ Touba fayee la ndax bëgg mu bëgg Serigne Touba. fonk bi mu fonk Serigne Touba laxasaay gi mu laxasaay liggéeyal Serigne Touba. tolloon nañ ci foo xamante ni dañ doon wax ni maanaam suuf si day attanul li nga xamante ni moom lañ bëgg ci barab bi muy jumaay waaye bokkoon na ci li nga xamante ni ay kii euh, euh, maanaam la moom euh, lii nga xamante ni moom taawul na ko Serigne bi muy jumaay Touba bi ndax daan wax ni. sàllaaw de loxo bu tuut bii de moo koy moo koy téye de waaw moo koy téye de ba bis ba kon bokkon na ci li nga xamante ni maanaam kenn euh, kéemtaanam la daal moom mom sëñ Fall euh, ba ba bañ ca tollo itam amna fu ñu tollu ci biir liggéey bi euh bañu tollu ci sorol mag bi sorol mag bi nañ ci mu génne ab junni daal di tek neena bimu tege daal ni ana ko xam manam sorol bi di kat la koy tuddé junni bi yaay boro waye kenn ku ci nek ak ka ngay indi ci sam xel mun leen yeyoo na ko de waaye du moom dan ni waaw ak junni de ku ne xam na ni maanaam jamono ji da cee jafe lool waaye junni bi day dellu ci poosu fàllu rek day dellu ci poosu fàllu nee na daal di jëlaat junni bi dugal ci biir poosam daal ni waaw sóoróol bi de tuddee naa ko lamp muy lamp fàll ba bu wuri dina daal ni waaw fu toll rek moo lay gindi kon bokkoon na ci li nga xamante ni maanaam ay kéemaanam la ay jaaruwaayam la kon ñoo ngi tubaat baax a baax tey jéggaluwaat foofu ba loolu itte gën a koo kawe ndax buñ ne jumaa ji fa mu tolloon ak jamono boobu noonu waaye sëñ Fallou ñëw maanaam nekkaat ci liggéey gi nekkaat liggéey xam ngeen ni si mu si Moussa bi mu mu defaree ba maanaam ba ba ba lépp ba ba jumaa ji jug waaye gis nañu Fàllu sóoróor yi Sëñ Fàllu Sëñ Fàllu Sëñ Fàllu moo defar sóoróor yi Sëñ Fàllu moo defar sóoróor yi waaye gis ngeen ni tamit ah mboolem mbooleem mbooleem ñi fi nekkoon ci magu murit yi ak mbooleem taaliba yëpp Sëñ Fàllu nam leen wooye woon ba it jumaa ji nañ ko daan aawantee euh, mbooloo par kër kër ni mu ko doon organiser si jëf te it daan si jiitu daan wax naan daan wax lu ma waay jox dama def ko si jumaa ji nee na nee nee nee nee nee na maanaam ah, lekk rek la la laalu kii ndax moom ah, daan na wax naan jumaa ji ak biir bi moom daan wax naan jumaa ji ak biir bi nee na jox ñu ne rek ma def jumaa ji biir bi nag ndax dafa naan ko ah, ku lekkul dee waaw daan wax naan jumaa ji ak biir bi lu ma jox lu ne rek ma def ko si jumaa ji xam ngeen ni kon kooku maanaam jëf gënu koo rëy mu nekk si jëf jooju noonu nekk si jumaa ji def ay pexe. sukkandiku ci dooleem sukkandiku ci murid yi gëm Serigne tubaa nag lu mu metti metti du tee moom xam na ni bëgg Serigne Touba mooy jumaa ji te it xam na ni am na ci cër bu rëy ndax Serigne Moustapha def na fondement liggéey liggéey bu rëy kon nag la koy eggali loolu Serigne Fall fa Serigne Fall la ne. jagle gi ko moom ndeysaan maam boo xoolee ci ni mu juddoo ni mu ganee si àdduna ak euh, jaaruwaay ak nekkinam ci digganteem ak sëriñ bi waaye digganteem ak taalibe bi. nga xam ne maanaam ku am jagleel ndax da xam ne leeri sëriñ bi yëpp kenn ku ci nekk maanaam ak sag jagle waaye daan wax ni sëñ Fallou day ku ne xam na ni maanaam Fallou avion la. saliga Fallou laay ni ma laawoo rabbi wa laa ilaaha kafal laayini malaaw rabbi wala ilaha illallah يا فادلا فضل الخلاق يا من بفارق الإملاق يا فادلا فضل الخلاق يا من بفارق الإملاق ما جد جيما خملتي برما عمر ويلما ki gën ci réew mi ma jóg daje ma xam le ti mbar ma Omar wayal ma ki gën ci réew mi moo ñàkk nawle ci xeeti beeg le ki jar xam le moo gën ci réew mi bur njool maka baax na Cheikh Fallu def na njëriñ ci réew mi bur yàlla yaa na njool maka baax Fallu def na njëriñ ci réew mi da koy indaal daan ne bu ngeen ñëwee bu ngeen la nga xamante ne mooy topp ca turu it maam suñu borom dana leen ko war foofee nga xam ne ne suñ fàllu dafa andi léppam léppam daa jag ba noppi nga xam ne moom jag la képp la nga xam ne ku nit alfadlu li ngëneel nga xam ne ngëneel moom mooy lépp nga xam ne kon sëñ fàllu doon na koo xamante ni wax dëgg léppam rek ak jagle la eh, te bokk na ci itam wax dëgg maanaam yii nga xamante ni moom lañ ciy tudd agas néew rek daanaka dañoo làmboowul ak li nga xamante ni maam day léppam ndax munuñu koo dajal waaye liñ naan euh, mbir moom lu mu bare lu mu loo ci am rek day daal di doy ndax sëñ Fall moom du ku ñu umpale waaye lépp loo xamante ni cuqi nañ ko ci moom rek daanaka am na ci baree bari ñu gën ñu koo xam foofu waaye moom jagleb suñu borom la waaw jagleb sëñ bi la moom laaj mu ngi doon naan sëñ Fall moom <laughs> kéemaan هدت لي ما سانو نفاق بمن بيس تنارت الأفاق جاري داوال فسول تاخو كما بكتل تاخو بكتلنا مال نساخو صلى عليه waaw sëñ Fallou nga xam ne kon maanaam loolu yëpp loolu moom ay kiimaana ndax kiimaana sëñ Fallou Eh, tey bokk na ci loolu nga xamanteni moy seigne Abdou Latif jenn mom mi nga xamanteni bi Cheikh Issa Diène amoon euh ba mu waree ñew gane ci ko waye bimu ñew ñëwee fekk ak leeram bu wacc waye dañu jël ki nga xamanteni mo wacc wàcc dem denc ko di ko nëbb sëñ Fall waaye bi ñu demee ba baña yak yàq ngan bi waraloon na maam ñu nek ci ngan bi di nek ci ngan bi ba daanaka am fuñ ci tollu biñ ñëwee ci lañ koy leeral daal ne ko ah Mbàkke ñun de boobu ba léegi ci ngan bi waaye dañoo amoon fii kat koo xamante ni maanaam ak faatoo ñu war koo waaj mun ne ana ko mu maanaam biñ ko ko waxee mu ni ko ah man de man fàllu de rus naa di la gane maam sag leer di génnaat mooy bàyyi ruur gi muy dem maam ci la wootee nag bi mu war bi mu ne yónni ni andi leen ma kaas te defal ma jëm ndox daal ciy def li muy def daal ni waaw bu demee de da ngeen yëkkati tuñu ba bëñ di feeñ ngeen sotti maam néew bi dana jóg dellu fa mu newoon te dana dundaat lu yàgg nga xam ne kon nee na ba mu ñëwee fa mu jël euh, loxoom ba teg bopp boobu ci boppam dafa def bu leer ba léegi mu kawar te kooku ba léegi yaakaar naa mu ngi fi muy sëñ Abdou Latif Diène borom Diène la kon nga xam ne bokk na ci ay kéemaanam moom sëñ Fall waaye tamit bokk na ba tey ci comme li nga wax rek baatut kun moom da ko indaale baatut kun kon xam ne ni sëñ Fall moom. Eh, ndax daan na def ci digganteem ak sëñ Bara bu kii daan joxe tàkk moom danaan yàlla taw mu saw waaw kon nag maam loolu yëpp mbir la moo xamante ne fu àgg ak suñ borom démb la tey soog ndax suñ borom daan noppi ci moom ba pare. dafa bokk ci jagle yi nga xamante ni suñu borom da ko koo jagleel waaye nag eh, lépp daf ko jël xamal nit ñi ne leen liggéeyal Serigne Touba rek mooy jariñ waaw xun mu faqiire jabrul kasiire siitu aqiire moo gën ci réew mi rusloo na wax seet waayam du jàmbar Cheikh Fallou daamar matale réew mi rusloo na wax seet waayam du jàmbaar Cheikh Fallu daamaat mataale réew mi waaw loolu tamit da di ngëneel xam nga da daan wax sax naan yonent bi dana dana lay mën a cëpp waaw kon loolu da di da di da di gi nga xamante ni ah bariwul nga koy dégg de waaw bariwul nga koy dégg de waaw ndax euh, Sénégal moom yaatu na so fi déggoon kum ko bokkaleel nag eh, defe naa kon danañ ko joyal waaye ci moom rek ngay dégg mu ne yonente bi dana lay mu ne cëpp waaw bis boobu nag di ngëneel li kese ndax eh, ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ci weeru rajab ngëneel yi nekk ci gën a dayo sopp nañ sax loolu ki nga xamante ni boo ko mënee nga nga nga nga woor ko waaw ndax ay ngëneel yi kese kese kese kese ndax ku ko def rek sa yaram araamal na sawara waaw kon daal sëñ Fallou maanaam da di géej waaw nah, da di géej kenn munu ko jukki ba ba ba ba, ba jeexal ko waaw da xanaa da nga ci barkeelu nga xam as as as as as tuut rek waaw waaye sëñ Fallou moom wax dëgg yàlla ah, ñi ngi santaat yàlla bu baax a baax a baax bañu ko suñu borom baaxee waaw incha allah. Mhm, mhm. ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo yaakaar sëñ Fallou nan la ñu waaw xam nga waykat ba dafa daan wax naan ah, innal muhiba liman yuhiba mutiya A nit ki mom eh, la mu bëgg rek lool lay wara top kon nak nit su fekke dang ka bëgg wolu ko yaakar ko jikkom yamu lambo won ba waxuma la eh, ñam bokk rek bëgg ko waaye jikko yamu lambo ba aduna bëgg ko loolu képp koo xam ne bëgg nga ko yow it ca nga war a jaar mooy am diine woyof baax yaatu tedd tabe waaw mom ab ab tabakoon la woo xamante won ah euh na dayo ñaarel ba euh dégg nga sax ne da nga daan gis nit togn sax mu laq ko waaw ndax xissa bi ci gëna siiw sax dégg ngeen eh, ño xamanteni ni danoo yoroon lo xamante des koy tere diko ko jaay ñu jàpp leen ñu ne sëñ ko mom ba tak der yi and ak ñom ba ca mom mu ne leen waaw maa ko ñu dem ba ba ba ba takk dare ya demee ah mu wét ak ñom yedd leen ne leen kat li kat xam ngeen ni baaxut waaw ñoñu karok dégg na seen adina karok lañu gëj def lu mel non ci lañ jaari jup sang na leen sutura tak nee nañ képp koo sutura nga julit yalla sutural la kon nak képp ko xamni yaakar nga eh, señ fallu dal euh na nga yor melaw talibé bi mu yoron ta ab talibé nak moy ki nga xamanteni day sax ci ndigal rek baye téré Euh, futtiku laxasaayu liggéeyal Cheikh naa Cheikh Ahmad Bamba ci na mu gën a sell. ba ñëw dañ ne ay jëmm yoo xamante nit dañ fee ñëw ngir dimbali ndax ndimbal moom mënta wees tey ay nitu yàlla ay góor yàlla maanaam ne fañ nekk ba am fu ñu toll ci seen borom tey jii bu ñëwee ba am melokaan boo xamante ne indiwaat nañ ko biir daaru duniya ndax kon loolu ñun lañu xeetali si kon ñoom. relation bi ñu amoon ci seen biir ak maanaam nekk gi ñu nekkante woon ci seen biir mu rafet lool loolu ak jàng la ak jàngale ngir lan ñun ñi nga xamante ni ñoom ñun lañuy bëgg a dimbali te ñun ñi nga xamante ni ñooy xeeñ ci lu baax te xam nañu ni newul fenn fudul ci sëriñ yi maanaam dañ daan dañ daan dañ daan dañ daan dañ daan dañ daan jokkalante jokkalante yu rafet dañ daan dañ daan dañ daan seedante seedante seede yu rafet waaye eh, eh, gis nga nit euh, waa kër maam euh, Abdoulaye Niass gis nga Cheikh ibrahim Niass muy euh, Baye Niass gis ngeen ni danaan dem siyaar yi Sëñ Fallu da ngaa dem nuyu ji da ngaa dem soppeem la woon da ngaa bëggoon loolu te yaakaar naa ne gis ngeen ni am na photo bu siiw boo xam ne feeñ si ñoom ñaar photo boobu sëñ Mouhamed Baara nee na man maa photo photo bi sëñ Mouhamed Baara bi nga xam ne mooy doomu Sëñ Fallu moo foto photo bi nga xam ne diggante Baye Niass la ak sëñ fàllu Baye Niass dafa daan dem lu bari nee nañ sax Baye Niass Moustapha ñëw bis sëñ Fallou ko gunge di ko gunge ba fi mu daan yem ci garab ga nee nañ Baye Niass ko ah da nga ndax dégg naa ko fi nga yem mu ne ko ah, yow moom yàlla dalaa beral la nga gis ni euh, ku baax la woon euh, gis ngeen ni keroog it euh, bi nga xam ne say Seydina Issa bi mu wàccee wàccee liggéey sëñ Fallou keroog dafa woo ki nga xam ne mooy sëñ Moussa Ka ne ko demal manam nga jaalel ma te it nak ma bindal ay talif ci mom nee nañ keroog ci goudi la ko wax mu nek lu yéeme lol sax waaye euh, ki nga xamne ne mooy si Moussa Ka euh, kii yi bari lol waye mu ne si Fallou lu mu wax rek lol day am. kaddu yi nga xamantene moy kaddu yi mujj yi kaddu sant ah sant gi ni sant nak moy sant borom Tuubaa ndax olof day wax ni ak cant mom làmmiñ a koy tudd waaye ay cër a koy def kon bi Sëriñ Tuubaa bokk na ci li suñu bàyyi sunu sëriñ Seydina Aliou Diop ñu ngi koy dollee ñaan suñu borom ñu daan wax saa su nekk rek nee na wër di wax ni maanaam euh, réew mi bàmbaaka moom ak tooñ la waaye fexe ba mel menakaan boo xamante ne ku la ne jàkk xam ne réew mi bàmbaaka moom kon loolu mooy mbir bi kon loolu it ñu ngi ci soññi wax bu baax di ci jiital suñu jëmm di santaat ñëpp di gërëm ñëpp képp koo xamante ni wax dëgg yaa ngi topp émission bi wax dëgg ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax di wàcce ko suñu kàddu yàlla ñëpp am dama ni sëñ tuba moom képp koo xamante ni sax yaa ngi kay diema euh, def loolu nga xamante ni moo dul bëgg loolu baat boobu ñuy wax kon bañ maanaam ku ko def man loo koy bañe koo xam ne musta tooñ boroomam musta tooñ moroomam hmm? euh, euh, dem tukki tukki bu rëyam bii ngir ràmmuñu ñun kese waaw mooy sababu xaybatiya anna allaha arada an anaala minhu jaaha wan akuna shaafihan li xaw mi wan akuna xaadiman fi daw mi kon nag bëgg googu moom moo ñu jariñ fii moo ñu jariñ fañ jëm waaw kon nag saa su ne nañuy wax jërëjëfe sëñ Touba rek waaw tey santaat suñu jàmbaar ji maam Cheikh Ibrahima Fall waaw di ko wax jazaaka nag ba faw wa axiru daxwana an alhamdulillah boolem loo xam ne wax nañ ko fi rek Euh, te it euh, muy njariñ di lu baax ñu xam ne suñu borom la ak tawféexu sëriñ bi mboolem lu ñu ci wax lu dëng it wala lu waxee lu nooy la ñu xam ne rek maanaam suñu matadi dong la waaye am nañu mbégte baax a baax di ñaan nag euh, yàlla dool lu ñoo taxaw te taxaw leen ñu ñaan it si màggalu Kazu Rajab ñu jëm ñu ñaan it yàlla may ñu gudd fan ak wér ba ñu fekkee ko te dundee ko ci ndigalu sëriñ bi ni ko sëriñ Mouhamadou Mountakha bëggee mooy rek waaye nekk rek dundal ko fa ci jàng alxuraan jàng xasida ak bernde ak mboolem lu baax lu ne kon ñu ngi ñaan suñu mboom may ñu gudd fan ak wér ba ñu fekkee ko di ñaan fekkee at yu bari yàlla tawféexe leen yokku yokku yokku jéego yi yaatal mbir bu baax a baax def ci akub tawféex ñu ne suñu boom dimbali ci mboolem jullit yëpp ñu ñaan seen Mouhamadou Mountakha mu yàgg loolu te ànd ak wér di ñaan seen see jëmm faal di ko ñaan suñu jàmm si Abdou Sokone Mbacké ak suñu jëwriñ ju baax ji sëy naa Alioune Diop ak mboolem jullit yëpp ak mboolem murid yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu

لا إله إلا الله لا إله إلا الله Sëñ Fallou yadde sam su sotan fal alo yaadu nga dan fal ngalam ki sotan nangi lo yesi yare sin falo ta ila ila Oh. والاعلي والزمن وقرنها علمي وليقل في كل كريم مخليا كل كليته عن الأزعم مصحبها والدنيا الكريم عن الأذى ولا يكون بما حرم اللهم صل على محمد حتى لا تبقى اللهم jeurin murtala ak jëwrin sëñ mur ñing ci njang fi njang mu am solo bi di len ñaanal lepp li nga xamne rek yëngu nañ ko ci xaside yeeg ci wolofalu sëñ Fallu yàlla na len sëriñ bi taxaw teeru len ci barki borom tuba mu melni ni sant bu baax suñu jeur yi nga xamne ne ñoom lañ andalon ci waxtaan sëñ Fallu bi ku ci melni ni sëñ Ahmadou Bamba kan ak sëriñ Mbacke Diagne ak sëriñ Amadou Mar ñi ngi leen di jaajëfal bu baaxa baax te ñaan lepp lo xamne rek waxtaan nañ ko fi ci sëñ Fallu yalla na nekk lu jullit yëpp yu jariñoo ci barke borom tuba wa akhiru da'wana anil hamdulillahi wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh